yemb lool waaye nag tàng jër la kii di Felwine Sarr binde lépp li nga xam ne naqari na ko jëm ci nguurum Sénégal boroom xam-xam bi nag di wane rekk àndul benn yoon ak dogal yi nga xam ne nguuru Sénégal jël na ko jëmale ko ci njiital Pastef les Patriotes ci parti bi ak itam bépp jéego yi nga xam ne nguur gi def na ko mu jëm ci wàllum nooteel ci ñi nga xam ne seeni kàddu jib na di wane ne d'accordu ñu benn yoon ak nguur gi que ñu doon ñu jóge ca kujje gi ci média yi ci société civile bi activiste yi wala sax ay citoyen simple yi nga xam ne génn nañu rek ngir wane seenub naqar Felwine Sarr di xam ne nguuru Sénégal mu def ñu dellu si wat ci ginnaaw ci wàllum démocratie ba tax na muy fàttali rek ci tarik ne ay jëf yu ni mel gëj nañ ko gis ci atum 1960 bi nga xamee ne tere woon nañu parti bii di parti africain de l'indépendance ci atum 1960 ci nguuru Senghor wala sax parti bi di bloc des masses sénégalais ci atum 1963 ak itam parti bii di front national sénégalais bu Cheikh Anta Diop ci atum 1964 ci jamono yi nga xam ne wute na lool ak bi ñu toll nii dellu si ginnaaw démocratie démocratie bu Sénégal bi nag boroom xam-xam bi di ko naxarlu bu baax jàpp na ne sax teguwul ci benn yoon ndaxte mu ngi xamle ci article bi ne du benn yoon ci réew mi ñu bëgg fee tere parti bi nga xam ne li ëpp ñi ko wundu doon ay ndaw te ndaw yi am doole lool ci réew mi lu toll ci 70 pour cent ci population bi bokk na ci li ko gën a naqari itam mooy doxalinu yoon ndax jàpp na ne justice bi fan yi ñu weesu dañu jëfandikoo ay kàddu yu jëm ci wàllu sûreté de l'État wala ci ay institution ordre public ngir rek gën a buntu xatal ñenn ci ay opposants wala sax ci ay activistes yi nga xam ne bëgg nañu génn rek ngir wax li leen naqari ci doxalinu justice bi mu jàpp ne loole nag du dara lu dul nguur gi nga xam ne bëgg na jëfandikoo yoon di buntu xatal askan wi loole waral mooy xam ne suñu société yi li ñu bëgg mooy ay coppite yu sori ci wàllum justice sociale nga xam ne dana taqalikoo lool ak li nga xam ne loolu la nguur yi nga xam ne ñoo wutu indépendance xamle toll nii jàpp na ne système ba boobee moom moo tax ba léegi suñu nguur yi di jëfandikoo clientèle politique bay lor seenum askan